man bu ma duggee te mu wër na man àdduna bi lu gàtt la bu ma duggee ci bàmmeel li may wax yàlla mu wóor na ma ne dërëm bu ci nekk danañ ma audité na ma foo ko jëlee foo ko def foo ko def nangam di jël ndax lii may liggéey ak nit ñi sama aqulaay taxaa laa képp laa lay waxal moom laa gën a fonk ci lépp moo tax naqaree jot gi am gaawoon bi ma gaawoo ni wax nit waaw nit yi mën naa woo sax ci tay tay ci bis bi ma am yëg-yëgu defal ko lépp lu mu bëgg mu dem tay tay man ci yëg-yëg laay doxe ak gëm-gëm. dañ lay conditionné rek. yàlla na nga gudd fan. yow. <laughs> <laughs> alors euh, le 9 Ousmane Sonko am na lu muy waajal. Mhm. vraiment ci euh, grand théâtre mhm. donc mu nekk jataay bu am solo boo xamante ne bi itam. Mhm. du ma sax focus parce que xam naa ne. am na yeneen ak yeneen ak yeneen yu muy waajal. Euh, moom Ousmane Sonko. généralement li ma lay laaj mooy. waaw lan nga gis dans l' avenir ci Ousmane Sonko ak président yi parce que diabolisation bi bëri na quand wax dëgg yàlla. depuis Juan Branco Mélenchon. tubaab yi nii ñu commencé jaxasook ak Hmm. danaa pëtëxlu ci loolu di wax ne boroom kër yi. Mhm. ci ay kilifa nawet bi dafa tàng ren. ah waaw ay bakkan da ciy taxaw. waaw donc da may may rek ma sànni loolu balaa maa ñëw ci Mélenchon. ñëwal ñëwal ak président Ousmane Sonko. ay bakkan da ciy taxaw boroom nawet bi nawetu ren bi dafa tàng. kuy seet nag surtout ci wàllum xilmun nu joom mhm. di nga xam li may wax moo tax boroom kër yi. nañ ñagaat seen njaboot yi te def sarax surtout mag ñi ñu teel leen seeni tànk lii di ñëw neexut man nag bu ma leen wax loo xam ne ay jay la farlu leen ci te képp ku ci jot na nga ko jottali sa moroom ñu fexe boroom kër yi def sarax buñ ko defee suñ boroom mën naa def ci réew mi jàmm nga lan milaasoo mag kee ay ca dijj loolu mën ñàkk ma wax ko nag da cee bokk <laughs> da ngay gis ay kilifa yuy faatu. nawet bi. ci nawet bi li ma la wax nekkul ci ci kanam la nekk na incha allah danañ ci danañ ñëwaat émission fii. ak ah. ay ca ñu dem. ay ñu dem. ñu dem Mélenchon. Mhm. Juan Branco Juan Branco moomu dama ciy ñëw. Mhm. dafa am baat bu bu président Ousmane Sonko wax keroog bi mu ñëwee fii. Mhm. dajeeg université yi lu kenn mësul def. mu wax ak ndaw ñi. cent mille ans soo jóg di nit koo xam ne dafa yàgg xeex xeexal tamit président Ousmane Sonko bi muy nekk ci jafe-jafe yi. Mhm. wax dëgg yàlla sonnoon na ci lool. bi mu ñëwee fii senegal dafa am lu président Ousmane Sonko wax mu indi benn polémique tal dañ nee na góor jigéen dëgg la dañ koo taloore fii senegal yow chaque jour nga gis jigéen ju sol góor gu sol daraa di lëmbal. góor gu sol. dara jigéen di lëmbal chaque nga gis góor goo xam ne. day jigéen jigéen lu bis bu yàlla sàkk nga gis ko chaque jour nga daje koo xam ne da lay wóor na ni kii moom boo ko nindutoo te yàlla dañu koy tere. kii am na nu mu mel. Ah, tam xarit tamit dañuy sol yére tam xarit chaque fois loolu taloore la. taloore la mais dañoo jàngul. kasis bël yi. Uh-huh. koo ñoo ko tay koo ne ci woon kat salaa bël mu xam ko mais nag kasis bël yi lañ war a lijjanti ñoo ko tay de koo ne ci kat salaa bël dana xam li nga ko wax. Mhm. te koo ne ci kas kasis biir du ko nangoo xam ñoo ko tay buñ ñu fontoo liñ bëgg a xam ñu ngi koy xam liñ bëgg a wax ñu ngi koy wax nañ dem ji kas man am na loo xam ne gis nga. dañu góor buy lëmbal sol sol dara di lëmbal. ah am na wu fi xewoon sax ya day ak lu ne xew na fi mais lépp koo taloo rek. mais wax ni Sonko rek lañ sa wax daal ñun daal ci pour ñoom Sonko te jànguñu Mbappé. léegi am na ñuy takkal sax ay ay ay. Mbacké Serigne Saliou Mbacké lii maa la ko wax man gis naa wallaahi gis naa góor goo xam ne dafa yor di lëmbal di ba ndax saay di jigéen jigéen di manière jigéen rek ñu xam. yooyu lañu def quoi loolu alors la bu guddi jotee kooku nañ la takkal ay biir biir wala yëpp mën nga koo def wallaahi góor man naa ne kay ah. góor bu toog di taxan hmm. moom <laughs> te dañ ko toléré dañ ko toléré am na ay soxna yu takkal seen ah. seen borom kër ay yoo xam ne ñoo gën a góore góor ñu talooree leen nag dëkk ak ñoom moo tax nag boole bu ah la di bi ay góor yoo xam ne. ah, ah ñu bu la gisee dara. ma ci tuñ. Hmm. mel ni ay. waaw ah, dëgg la. sëñ bi dañ ko jigéen la nañ wax hmm. xoola. ñu ko mën nga def. waaw am na ay lèvres roses yi. waaw na dëgër léegi. góor da nga da ngay dëgër. kuréel yaa ngi dégg ñuul ñaaw. waaye góor goo xam ne toccali ko ak tallax tallax yi. Hmm, sol yére jigéen. Mm-hmm. am am wax seen loxo fi ne nii lañ koy def nii. lii du tolloore. Ah, am na góor bu toogee mbaxal sax. waaw ah, mbaxal yi bien sûr. naan am def naa ci sama yaxos. comme waaw ah, gis nañ waaw waaw dégg nga loolu du tolloore. waaye ñun dañ ñuy ñii ñii li tax ñu yàq Sonko. lii ñëpp mu am ci réew mi buñ ko taloo réew woon ñooñu dañ leen di gas suul leen. <laughs> dëgg la. te koo ci topp ci ñooñu rek am na ci lo moo tax dañoo dañoo yabaate bark yàlla am na ñoo xam ne góor jigéen ñi leen gën sax xam loo tax mhm. am góor gis nga góor da ngay jëf-jëfi góor xam nga luy jëf-jëfi góor mhm. da ngay bàyyi ay détails nga gëm nga nekk réel dund li ngay dund waaye Sonkoo lañ bañ a bañ a bañ a bañ waaye Sonkoo yàlla da koo dimbali ndaw ñi dañ koo bëgg bëgg te dootuñu ko bañ ku yàlla nar a dimbali bëgg na Sonkoo te Sonko moos kuy xeex góor jigéen da yegsi ci moom wallaahi la xasim xam nga ne xam nga ne moo la moo la ciy dimbali. wallaay Sonko mës ta nekk ci lu bon. mosu koo wax mosu koo jëf. waaye ñii boo leen toppee dañ lay waaye di loo sax ndax li ñu war a faj xam nañ ko li ñu war a wax xam nañ ko waaye lan bëgg profité te nag ma mhm. ñu ci bari ay politiciens lañ. ah xam nga lu ñu bëgg a politiquer fi mu ne. affaire góor jigéen. mais du jàll. te Sonko billaahi wal kitaab bi lii maa la ko wax képp ku nekk ci réew mi. Mm-hmm. lii sa àq ak sa yàlleef lépp lu la koy xañ du jóge ci président Ousmane Sonko waaye maa ngi lay wax lii moo it ak njabootam nañ dalal seen xel du leen wor du leen wur te du leen fen waaye nekk naa njabootu président Ousmane Sonko ba tax na. fee ngay dajeeg nit rek mu provoqué bëgg laa attaqué naan ñoom léegi li yor état beeg li yor nangam a tax bu leen ragal continue leen patriote yi ngeen a dox maslaa da ko jarut ñii bi koy jabaram doomam amul bag ñii di gàddaay papito kara mënumaa gis ab fotonte jooyu ma papito kara demoon ba jëlum xelam jëlum fitam tëj ko ci kaso bi mu dem bay jël gaal yi di dem. waaw ndeysaan. njabootu Sonko dañoo yàgg souffrir il est temps nag ñu may leen ñu dal nekk ci jàmm reposer mais fitna ba kañ man nag maa ngi ñaan yàlla képp ko nar a indi njabootu président Ousmane Sonko yàlla yàlla nañ ñu ko dugalal ci suuf si man da ñaan naa yàlla. Hmm? te yàlla sama xarit la de maa la ko wax de billaahi wal yàlla luy lu sérieux ci man ma toog ñaan ko ko yàlla dina ma ko may nañ ba njabootu Ousmane Sonko nag waxuma njaboot bu jur ci gañoom wala ay jabar ak doom waxuma ñooñu patriote yi laay wax yëm njaboote ak ñi ko xeexal ci combat bi waa parti bee ci gën a ndaw nag waa parti Pastef ñoo ci gën a ndaw am na patriote yoo xam ne ñu ngi fii ci internet bi ñëwee ci Europe information yu yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar nos plateforme d'information